jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen bëggee di leen kontaane comme ni ñu ko tàmm di defee ak yéen saa su ne ci sunu ay xibaar yoo xam ne dañ leen koy jox seen mbokk Fallou taal di leen ko jox saa su ne lu jëm ci wàllum làmb mbokk yi tey ñu bëgg ñëw ak yéen ci xibaar yoo xamante ne génn nañ gis ko fii ci sorti yoo xam ne ki nga xam ne moom mooy Aziz Ndiaye di njiitul Albourakh Events génn na wax ci ay sorties yoo xam ne jëmale na ko ci wàllum làmb mu dox ci digganteem ak ki xam ne moom mooy Serigne Ndiaye a 2 ñu ko gën a xam ci Coréas mbokk yi Aziz Ndiaye wax na ci Serigne Ndiaye loo xamante ni tey mooy Serigne Ndiaye ñi mu war a bëreel bëreewul ak ñoom parce que Serigne waroon na bëre ak ki xam ne moom mooy caatu Yoff proposé na ko ci li mu wax Serigne Ndiaye nag daa mel ne am na lu ko gënal ku dul caatu yoof waaye Aziz Ndiaye ba mu xalaatee wax ci ay kàddoom dafa xamal ni Serigne Ndiaye mënagul bëre ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye numéro 2 bi nga xam ne moom mooy agent am ak i am xam ne moom mooy Sa Thiès Serigne nag mu mel ne kàddu yooyu Aziz Ndiaye wax daf ko metti ba mu génn amal ci ak tontu yoo xam ne tontu na ko Aziz Ndiaye ak lu làmb ñu bari di laaj lan moo tax parce que ñoom ñaar amoon nañ diggante boo xamante ni si diggante bu ratax la bañ ko doon jiiñ sax naa ko doon ñëw di jàppale Balla Gaye ci ay contactam ci ay combat am Serigne Ndiaye xam leen ne kii nga xam ne moom mooy Aziz Ndiaye bëggul mu bëre parce que bu bëggoon mu bëre dina ko proposer ay yeneen adversaires dul caatu Yoff gannaaw bu mu ko proposer ki nga xam ne moom mooy Dour Sané moom jëlu ko mu dem bëre ak caatu Yoff waaye caatu Yoff yi nga xam ne moom loo ko proposer dafa mel ne am na leneen lu gën caatu Yoff moom Serigne Ndiaye ba tax ni wax na ni ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye numéro 2 ak euh, Sa di rakkam ñoom ñaar ñëpp moom moo leen mën parce que dafa jàpp na ñoom ñaar ñooy ay mbëru Aziz Ndiaye ba yëkkati ci ay kàddu yoo xam ne ñu bari rafetlu ko parce que nee na Balla Gaye numéro 2 tàkkusaan bu ñu dajee ñoom ñaar bu ko jàppee da koy duma da koy daan moom Serigne Ndiaye numéro 2 ñi nga xam ne moom mooy Coréas moom moo wax loolu waaye mu doon xale boo xam ne xale bu am yoonu làmb la doon xale boo xam ne xale bu ñuy séentu ci kaw parce que boo ngeen dégloo ci ay kàddu leen koy dégg roi des arènes tamit moom la bëgg doon yooyu Aziz wax ba mu ci génnee addu ci wax ci ay wax bëri na ñoo xam ne génn nañ ñaawlu ko waaye dañuy xam ne tollu waaye moo tax mu wax loolu mbokk yi ginnaaw bi ñu génnee ci loolu dañuy ñëwaat ci ki nga xam ne moom mooy Modou Lo Modou Lo tamit toogoon na fi wax du bëreewaat ak ak ki xam ne moom mooy Balla Gaye numéro 2 kàddu yooyu ginnaaw bi mu jibee wax ji bari na waaye Aziz Ndiaye tamit dellu si waat na ci loolu xamal nañu ne Modou ba muy wax loolu boobu Balla Gaye ak Tapha ginnaaw bi Balla Gaye bëreewaat na fi Tapha Tine daan Tapha ñëwaat taxawaat ci palaasam kon instant bi di bu ñu génnaatee wax ni Modou Lo Balla bu ñu leen fayee 300 millions mel ne kàddu yooyu noonu Xaarim Gajaga moom di njiit ci Rock Énergie moom moo génnoon wax kàddu yooyu noonu Aziz Ndiaye xam le ne ni ñoom bu ñu demee indi seen promoteur bu ñu leen fayee xaaju trois cent millions yooyu muy cent cinquante millions ñoom dinañ jël combat boobu bëree ko waaye Balla Gaye nekku fi pour benn mbër rek Balla Gaye mu ngi fi pour mbër yëpp noonu gannaaw moom ñu xamalee tamit li tax balagay bu jógee ci combat du delluwaat INSEP su Paris moom xam na ne ne INSEP su Paris budget moo fa nekk te nekkul nii dangay ñàkk am komba dem fa parce que Balla Gaye bu amee combat dem fa INSEP su Paris fi muy nekk da koy fay coach bi nga xam ne moom moo koy entraîné da koy fay kon loolu lépp amaana budget la loolu moo tax Balla Gaye mënul ñàkk am combat dem di entraîné ji foofu fii mu nekk mi ngi fiy entraîné li nga xam ne moom la fi war a entraîné waaye bis bu amee combat 4 mois Balla dina dem préparer ji foofu ci ay waxam. chaque jour mooy Balla bi ñuy jël avance ak Balla Gaye bi ñuy bëreel du benn loolu nag bu ñu defee sunu ay jàngat dañ koy gis ci ay combat Balla parce que Balla Gaye saa yu jël avance mun na bañ a nekk ci état de forme yi nga xam ne moom la ay supporters am soxla waaye bu demee INSEP su pari préparé ji bu ñëwee dañuy gis ne indi na état de forme bu doy waar indi na état bu mucc ayib mbokk yi loolu moo doonoon loo xam ne dañ leen ko doon indil comme tey information yi nga xam ne moo jot a jóg ci wàllu làmb ñu ngi leen di bége bu baax a baax.